suñuy jaar jaar daal dañu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na ko station bi ñu tàmbal nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulillaahi rabbil aalamiin diin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika asantu allahumma onze wa izaatika la ilaha illa ant an tubdilaani anta xayru lazi la yamut wal jinni wal insi yamutuna ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu góor yàlla yépp jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi kilifa jataay bi di Cheikh Babacar Diouf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ak njabootu Zahir ak njabootu baatin gi yëpp. noonu lañuy ñuy siyaaree tamit Cheikh Aline Diouf di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te ak njabootu Zahiram ak njabootu baatinam. di ziyaarit wax dëgg yàlla Baay Moodu bu Sinja di la ñaanal yow nga yàgg fi lool te wér ak mboolem ñi nga àndal yépp ci liggéeyu Cheikh Moussa bi di ziyaar mboolem ki nga xamante ni teew nga fi ak mboolem waa dëkk bi yépp ak képp ki nga xamante ni yaa ngi dégg suñ kàddu di beral loxo nag ak beral nuyoo mbokk soxna yi nga xamanteni ni nek ci wañ bi ci suba ba legi ndax kat wax deug yalla ku ñew fi tay xam nga ne jalal na lol nga boole ci nek ci ay cin ak ay mat ak tangor wi xamante ne jamono je ko tang wax deug yalla yey nañu sant len gëreem len boole ci ñu togg fi xewal gu yaatu timit te neex lu yomut nak ci ay <laughs> jëg ci kon ñoo ngi ziar ñëpp wax dëgg yàlla ci benn baat bi nga xamante ni mooy baatub laa ilaha illallah di baat bi nga xamante ni saa yuñ ko tuddee wala saa yuñ ko yëkkatee lépp lu rëy walla lépp lu doon rëy rëylu wala lépp lu doon màgg màggulu danga wàcc ba dese tuuti wala danga wàcc ba jeex tàkk ndax laa ilaha illallah buñ ko yëkkatee réewaluñ kenn màggaluñ kenn yëkkatiwuñ kenn lu dul jëmmi yàlla ji kon nag ñoo ngi jéggalu ñi nga xamante ni bu njëkkatee laa ilaha illallah ama wala seen daraja da ciy wàcc waaye nag buñ nangoo ne ab cër bu ndaw lañ ci am ci yàlla mu jox leen maqaama boobu ñoom sax ñoo war di njëkk di yëkkati laa ilaha illallah bi nga xamanteni mom dong la yalla di fay keroog yowmal khiyam buñ ko nak da na am ñum jaaxal waaye nak fu wër lañ ko tek li tax ñu wax ne mom dong la yalla di fay yowmal khiyam moy yalla mo wax ne bépp jaamu bu nit ki di def te andut ak tawhid bëgguma jaamu bobu te laa ilaha illallah hiya kalimatul tawhid mu ne baatub laa ilaha illaa mooy baatu tawhid ñu xam ne kon yeneen ibaadaat yi jàmm di def yépp baax nañ waaye nag ba ca war a jiitu moo di baatub laa ilaha illallah moo tax suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee di woote jékki-jékki wut wàcce benn ibaadaat déedéet ci tawxiit la doon yar saxaaba yi dañ koy wax sànnaam xeeru xiraa la doon dem di wiit ak ñoom ndax xamoon na ni tawxiit rek moom moo mën a dëggal ab jaamu moom moo mën a sellal ak jaamu te suñ boroom daf ñu wax ne digaluma leen lu dut ngeen jaamu ma te sellal jaamu gi wa maa umiroo ilaa li yaxbuduuna allaaha moxlisiina kon jaamu gi lañ ci bëgg mooy ak sell waaye nag lan mooy sellal jaamu gi ndax waxtu julli jot nga jàpp la loolu mooy ak sell ndax sol yére yu takkut sobe la loolu mooy sell ndax lal sujaada bu set la loolu mooy sell sore na lool ak sell mën naa laab de waaye sellut de yére bu set bi laab na bu fekkee soxna yi fóote nañ ko ni ko war a fóote sax foofu sax sariya dafay indi ay ay ak ay condition <laughs> muy lu jafe-jafe nga xam ne kon laab ak sell dafa wute nit mën naa sol laab lool taxaw ne julli na ne julli gi sell na wala taxaw ne woor na ne woor gi sell na wala mu taxaw def benn ibaadaat ne ibaadaat bi sell na fekk na nag dafa jaawale sell ak laab laab nag ci xol lay nekk moo tax borom jamono bu ñëwee li muy njëkk a def day njëkkante ak ibliis ak xol yi sëriñ tubaab moo ko firndeel moom moo wax damaa njëkkanteeg ibliis ci xol yi damaa njëkk ci xolu jaam jaam ñi iblis ndax xam na ne mission bi nga xamante ne ci la jaam bi war a taxaw ba war a jaamu jaamu ko sell ci xol bu laab boobu ci sellal googu ci la war a taxaw moo tax képp ku yàlla mas a yónni wala képp ku fi mas a yuuti yonent yi baatub laa ilaha illaa lañ la jox yàlla moo ñu ko wax ci alxuraan yónniwu ma la ko daree ca noox ba ci muhammad sallallahu alayhi wa lu dut dama leen a wax dama leen a wax yu laa ilaha illallah te ci laa ilaha illallah boobu ci lañ koy jaamoo kon jaamu yàlla sax ci laa ilaha illallah la nekk ndax lépp lu waay di def te àndut ak seede laa ilaha illallah loolu muy def du jaamu yàlla moo ko tuddee nag ndax ponk bi njëkk ci islaam dañ laa la da seede laa ilaha illallah seede na amul benn buur bu jara jaamu te muy dëgg borom maxrifa yi ne da seede na dara nekk fi lu dul yàlla te muy dëgg ci kaw dëgg ndaxte seede mooy li nga xamante ne mooy li jiitu ci ab jaam boo seedee na amut ku jara jaamu ku yàlla te jaamu koy fay ku yàlla ñu ne la da ciy teg nag waaye muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa yonent wala mooy rasulullah foofu it ma am ñaari lëj-lëj yu ci nekk diggante muhammad ak rasulullah muhammad jëmm la abdallah mooy baayam Aminata mooy yaayam mu amoon tànk ami loxo doon dox ci suuf si jant bii doon ko tiim mu xëy xëy xëy yàlla jële fi jëmm ji kooku mooy Muhammad waaye rasulullahi moom ala kulli alin du fi mës a jóg te képp ku seede laa ilaha illallah forcément da ngay seede waale na rasulullahi jooju moom du fi jóg moomit ndax rasulullah jooju ci ngay mën a taxaw pour mën a jaamu yàlla di donte nag su ma ko waxee dana am ñu ko déggee ay ibaadaat déedéet ci maxarifa laa wax donte ibaadaat yépp baax na waaye daa am lu war a jiitu ci jaam bi laata ibaadaat yooyu yàlla suñ boroom moom la njëkk a digle tahrifuni khabla an tahbuduni fa in lam taxrifooni fa kayfa tahbuduni yalla dafa wax ne xam ma njëkk soog may jaamu donte nak lu jafe la sax ci ko xamul yoon ba ci ku nangulut ko fa xam ndax ngir bëgg ñoo dimbali serigne touba dafa wax ne waxta bi rijala khabla suhba mbër yi ngay mu delluwaat wax ñu ne waman tawasala bi waa silil wasal waman tawasala bi xaq silil fasal booy jokk de na nga jokk ci ku xam soobuwaay ya wala na nga jokk ci ku jokk ci yàlla li tax nga war a càmbar mbër yi tey ji jamono ji toll nañ ci kenn ku nekk nee nga sëriñ nga ñun ñi nga xamante ne ay murit lañ ñu bokk ñu donn ak murit ñu ci ëpp ndax noonu laa ko mën a tuddee ndax yow dañ lay laaj sax loola def murit xamoo ko damaa judd sama waajur di murit may murit kese waaye bu la laajee lan moo la def murit xamoo ko te wax dëgg yàlla juddu say waajur di murit defu la murit mën nga koo wuyoo nag ñi ne ci tarixa balaa bokk waaye lu la ci boole tarixa boo fi gis borom ba mu koy tënk daa am ca jublu woon di ba mu koy woote daam lum ca jublu woon sëriñ Tuubaa leer la wax min na laahi illa laahi ay na muridu laahi ci yàlla laa jóge ci yàlla laa jëm ana ñi dama dem ci yàlla kon ku bokk ci yoonu murid nan nga war a def la ca jiitu mooy na nga nam ma dem ca yàlla waaye ndax da yem ci namm motax dañ nan murid saadix muridu la muridu saadix waye da ngay dem sax nak ba da ngay jéggi sax murid nak. ndax li tax ma wax lolu bo namé dem ci mbir ba yegg ci mbir ma est-ce ya nga ci namm ba léegi nekkatoo kuy nam di kon yegg nga di motax serigne touba ak Cheikh Ibra lolu mo len bolé won ndax serigne basirou mbake moñu ko netali ci minnal khadim moom moo wax ne Cheikh moo ko wax ci làmmiñam ne ko keroog ba ma jàkkaarloog sa waajur dama ne ko indi lam yaxruj nuy min bayti ilaa talabi seexi mu waasilin keroog ba ma jàkkaarloog sa waajur dama ne ko dara taxu taxumaa génn sama kër lu dut wut sëriñ bu yegg ci yàlla te mën maa yeggale ci yàlla waaye loolu kay dëppoo naag li sëriñ Tuubaa woote min na laaxi illa laaxi ay na muridu laaxi nga laaj ko loolu ah war na cee sawar kat waaye nag lan lañ ko joxoon du war ak waxi yàlla de yàlla daf ne képp ku mos a wax laa ilaha illa la wax loo ba dañ nañ ko sax dañ naan yàlla dafa wax yonente bi sànni naa la wax ju diis ñu bëgg koo firee alxuraan du alxuraan de laa ilaha illa la ko sànni mooy wax ju diis ji ndax mooy wax bi nga xamante ne moo màbb lépp saxal yàlla bañ nañ ko ba dañ koy xaaj ci ñaari xaaj ne la naf yu la wa isbaat naf yi mooy dàq isbaat mooy saxal dàq lan lu dul yàlla saxal lan yàlla kon kay wax ju diis dañ ko lañ ja ko yàlla sànni woon mooy baatub laa ilaha illallah moo tax képp ku bëgg a yegg ci yàlla ginnaaw bala sëriñ Tuubaa waxee da ngay natt mbër mi nga war a àndal càmbar ko ba pare mu la wax la nag nan ngay def nag kon ba xam laa ilaha illallah sëriñ boobu lan la la war a jox moo ñu ko nettali ba tey ci masaalikul jinaan من وإن تكون مبتدئا فالنفيو أو لا مها تخزيم يا أقيو بك بلا إله إلا الله من بونك دين داو دي تامبل تيونو يا الله من نلا باتو بلا إله إلا الله دوي نغيس نه كون أم لوني إله إلا الله ndax serigne touba dako wax kasfuna azraruhu laysa yalihuna likawni sirri bahran hamikh mu ne sakkarab laa ilaha illallah yeyoowut ñu koy bind ci téere ndax dafa mel ne lu nekk ci xóot-xóotu géej fa man yurit kas fa lës yi te damma naa yu talixal duniyaa talaxal bay naa mu ne képp nag ku bëgg secret boobu nag dangay def ni góor yàlla yii dëddu àdduna dëdd bu bér ginnaaw nag ba nga àndeek sëriñ bu xam bu waay ba ndax nit dëdd na àdduna te àndut ak ku xam fa muy mujj ci sànku dong la ndax tasuuf dafa am ay ponk te ba ko sëriñ tubaa di lim ba mu limee ñeent yi da cee booleeg sëriñ bu xam soobuwaay yi arifal masaalik léegi nag sa kërëb laa ilaha illa kon ku ko bëgg a xam nan ngay def dangay def ndigalu yàlla yàlla moo wax yéen ñi gëm dem leen ngeen wuti wasila bu ngeen wutee wasila nag wasila boobu moom moo lay xamal sa kërëb laa ilaha illa moo tax ñu sant Cheikh Moussa bu wér yàggoon nañ fi nekkoon ci ay mbir nekkoon ci ay kër doon fa wuyoo nekkoon rek tarixab donnu comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi waaye nag seex musaa moo ñëw ne ngeer yi sëriñ si doon làqatu di nax taalibe man Cheikh Moussa gor naa ko sëriñ bi di sëriñ rek taalibe bi di taalibe rek mu ne dañ koo seetut waaye du dëgg te muy lu wér amut ben ku fi deg tay ci senegal borom tarixa dip sëriñ xeyo xey nek sëriñ amut donné woko sa papa donné woko sa yaay kon lila def sëriñ da am fo jaar dañuy wax Cheikh amna 30 ñu nan 35 kon kay amna fum jaar li waralon Cheikh Ibra ñu nan da doon lamb ñu yaakaar ne bëre la ngembu kon kay amna fum jaar li yow mi bëgg yegg ci yalla nak nga alaa kulli alin du jaar fa mag ñooñu jaaroon wax dëgg yàlla dina kemaane lool te xam-xam bi waruñu koo jombale suñu bopp ndaw ñi waruñu koo jombale seen bopp mag ñi waruñu koo jombale seen bopp kenn waru koo jombale boppam sëriñ Tuubaa moo ko wax nene bu leen jël ngëneel lii ngeen jagleel ko ñu weesu woon kenn da ngeen di perte waaw ndax boo ne ngëneel ma mënatuma ko am sëñ bi rek moo mënoon a am lii te yàlla mi mayoon sëñ bi ci yàlla moom du fi jóg asamaan sii moo ko tiimoon jant bii moo ko doon leeral suuf si la doon dox nga ne moom ñoom li ñu amoon ñoom rek ñoo ko am yow keneen mënatu ko am xanaa yàlla dafa tële bokk te jomm na si moom li des kay mooy xam li nga bëgg def ci pas-pas ak yitte te wuti ko te bàyyi komplex gi complexe gi mooy lan mooy su ma demee fee dañ naan damaa xàcc sama mbokk yi moom gaaw nañ ci lool diw de léegi dafa xàcc ci yàlla yàlla yi la bokk bul ñëw ci yàlla yàlla yi waaye wutal ku la yeggale ci yàlla nga jaamu yàlla yàlla fay la <laughs> ndax fee ñu jëm moom amul ku fay fayee ko te xamoo yàlla mukk yàlla ay waxam du dañ xam ma jog may jaamu nga ne xamoo ko di jaamu ne ëllëg di nga fayeeku ah dina kéemaane de mu dellu nañu wusool ala xismay nii wusool ilaa rabbika wa wusool ilaa xayri rabbika fa wusool ilallaahu tabaaraka wa taala alaa yaraa illallaahu mu ne yegg de ñaar la yegg ci yàlla ak yegg ci leneen lu dul yàlla mu ne ku yegg ci yàlla nag doo gis leneen lu dul yàlla ku yegg ku yegg ci leneen nit leneen rek ngay gis di alxuraan ñaari bayit la ñuy ñaari aaya la ñuy jàpp nekk ci di wax wa naan yàlla yàlla ñoo naan dañuy gis yàlla te yàlla moo ne laa tudrikul absaar te muy lu wér la tudrikul absar bët jotewu waye bu li yem fofu wa huwa yudrikul al absaar moom yàlla mooy fekk si bët di ko kan mo fi xey xey xey gis yalla likoy firndel soxna yema ko gëna xam xalé bi dogo juddu ndax dafa jek jek gis ndax dafa jek jek japp ndax dafa jek jek dox dedet am na une semaine boo nee ko nii sax du xef waaye ca une semaine ba ba yàlla tàggatee gis wàcce ca bët ba dafa gis ba yàlla tàggatee jàpp wàcce ko ca loxo ba dafa jàpp ba cër yi jeex kon la mu wax ne wa huwa ab saar day doon lu wér kon yàlla bët jotewu ko waaye ci ndimbalam ak ci kàttanam la nit ñi di def ba gis ko nag te ka koy weddiwaat yàlla ne la maasaayu maa baatinu maa jiitu maa mujj waaye léegi ki ne moom moo zaayiru yow nan nga mën a taxawee ne yàlla moo zaayiru di ko seede te mënoo koo gis kon fan nga taxaw ba seede zaayiram googu ah kéemaan la di yàlla moom moo ne maa zaayiru nga koy jàng chaque jour ci alxuraan yow nga ne yàlla kenn du ko gis yow nan nga def ba xam ne yàlla dafa zaayiru kon comme kenn du ko gis zaayir moom mooy ko feeñ ki feeñ yow doo ko gis kon lu tax nga ne yàlla dafa zaayiru muy question bu kéemaane tamit beneen bi jaam ñiy taxaw bay weddi gis yàlla mooy aaya Muusa te aaya Muusa maa ngi tàllal fi laa toog képp ku jàng nga ñëw ne ma aaya Muusa yàlla daf cee wax ne pepp leer la woon Muusa kaay aaya bi ba aaya bi jeex ku ko tari génn ci leer nuuru nga ñëwal falamaa tajala rabbuhu lil jabali ma tajjala ba borom musa feñe rabbuhu borom musa la di rabbana sama borom rabbuka sa borom rabbuhu du borom Musa ba mu feñe ca doj ba doj ba dafa def dakkan pend ñu ne Musa dafa xam du yuxu kuy xam sax nan la yuxu jarna laaj xam ba pare du yuxu man ne mosuma ko gis waye dafa am fum tollu won maqamay maqaamay la toll motax gis nga bam bam bam bam ba mu lu wax subhanaka tudd naa sag sell ka ka koo gis nga koy wax di wa ana nii na man maay ki njëkk a gëm ndax yonente yàlla Moussa moo njëkk a gëm ana aadama ñi ko jiitu woon kon jaam bi lu mu xamut man de xawma ko lu mu gisut danaan man de gisuma ko ndax yàlla moom moo ne moom mooy leeru asamaan waxoon man maay leeral de allahu nuuru samawaati wal ardi wa maa baynahuma bu ne woon allahu mun na wiru kon day doon yàlla mooy leeral waaye def ne man maay leeru asamaan ak leeru suuf ak li ci diggante bi léegi loolu lan lay joxoñ mu dellu ne la an na xam ne aqarabu min xabril warit man maa leen gën a jege sax seen bu xol nga jàng sóoratu mujaadala Munela ne la bu ñeent man ma leen di juromel bu jurom toge man ma leen bu ñett toge ma leen di ñentel wala lu ko ëpp wala lu ko wala sax mang yalla sax maa ak yeen fu ngeen nek inna ma hum aina ma kanu fu ngeen nek ngi ak yeen bobu doyit fa aina maa tawwàllu fa samha wàcci legi <laughs> léegi fépp foo gestu sax legi fépp fo xol sama jëm ji ngay jàkkaarloo wala sama kanam ji xana kanam kay sax gëna leer kon gis yalla lu wér la kuko gisul nak da gisuma na dem ci ñi gis ñu won ko ko waaye boo nee gisuma nga rok Baye Sidi tok fi nan day gis yalla nga romb fi bay Sidi dem ci oustad be xamne ne yalla yàlla ko bay Sidi nende day gis yalla est-ce que loolu dëgg la danaan la du dëgg ndax gisul man mako wax ñëw nga laaj ma ma tek ba la yalla ngi ni nga xamne yalla ngi ni nga jaamu ko nga demu fay la ku ci fay ko loolu la Cheikh Moussa wax waaye nag ku toog fële xamul dara ci tasuuf xamul dara ci xam-xamu maxrifa boo demee laaj ko lim xam rek la lay wax te ñoom téere la jàng te xam-xamu tasuuf nekkul ci téere xam-xamu maxrifa yeyoo wut ñu koy bind ci téere loolu la Sëriñ Tuubaa wax moo tax Cheikh musaa loolu la waxoon kuy wër li nga xamante ne duñ ko waxtaanee ci ci ci ci pénc ma ak loo xamante ne kenn du ko bind téere boo ko demee di ko laaj ci pénc ma ndax di ko xam dedet do ko xam serigne touba baax ñu wax ñu nan lañuy def ba xam xam-xam bobu ginaaw ba nga tané serigne tunalu bil muqabala wa bil musaafahati laa mujaadala tunaalu danañ ko amé ci safonté ak waxtaan la mujadala ko ci soriyo tunalu bi ixtilaafi nafsin wa hawa danañ ko amé ci jaayante ak sa bakkan ak sa banex tunalu bi taslimi wal mujahada waye nak danañ ko jaayante danañ ko amee ci jébbalu ak bañ a ku ko am ñi ko umpale yépp tey loolu doo nga leen jàpp xeeb ñi ko am di xool ay askan di xool ay sant waaye yàlla xoolul askan xoolul sant Sëriñ Tuubaa sax loolu la wax ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla est-ce que dafa wax ki gën ci yéen mooy ki sant Mbàkke est-ce que dafa wax ci ki gën ci yéen rek mooy ki sant Faal déedéet yàlla moo ko njëkk a wax ci ragal yàlla rek moo gën ci gën a tedd ci yéen mooy ki gën a gën ragal yàlla kon nag saa su nekk ak jamono ju nekk nit ki li nga xamante ne mooy sellal ak jaamoom war na ko wuti te xam-xam boobu mooy xam-xamu tasuuf ndax diine ñetti xaaj lañ ko xaaj dañ ne la imaan ne la islaam nela la ixsaan mooy gëm islaam mooy ibaadaat yii ixsaan nag mooy sell la loolu sa diggante ak sa borom la moo tax imaam Xasali ne ki nga xamante ne day doxe tasawuf mu ne de waa jamonoom danañ ko xeeb danañ ko beddi danañ ko dëpp dëkk tuddee yéefar waaye ci kanamu yàlla yàlla ko ko weg la yàlla ko ko fonk la mu ne waaye kiy dund sariya ci jamonoom waa jamonoom danañ ko wekk danañ ko di jàppee jullit waaye mën naa nekk ci kanamu yàlla sax koo xamante ne goloo ko fa ëpp maqaama yàlla nañ ci yàlla musal kullu man zakkaraha muxtada matmunaha daxala jannati xadan képp ku tudd yàlla tudd laa ilaha illallah mu ne si sax làmmiñ fas ko si sa xol teewlu ko sa mu ne sa kër àjjana la te loolu hadis la kon ñun ñi yàlla baaxee ñu téye laa ilaha illallah nañ ko gën a téye nañ ko gën a fonk ndax xas bu ko fiiha annaha tutan sàmmanu janati rabbana lool la sëriñ tubaa wax mu ne nala la baatub laa ilaha illaa doy ndax bu fekkee am nañ kon bu leneen doy lu dul laa ñoo ngi tuub nag bu baax a baax a baax ci kàddu gi suñuy jaar jaar daal abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.